Nda Mbaye. ça va bien. champion Adja ci loone maa ngi si jàmm man Ndeye Gningue laa tudd. Ndeye Gningue foo dëkk. Fimela. waaw. am na solo Mbaye ak Loum borom bin farba ci loone Khady Diouf laa tudd. am nga jàmm. Khady Diouf laa tudd. kan moo tudd Khady Diouf yow. waaw. Khady Diouf foo dëkk. Yerwago. Yerwago waaw. yal na ko yàlla jéggal. amiin suñu yaay Khady ah. amiin. yaakaar na yéen yéen ñëpp yéen ñëpp ci moom ngeen roote. ah yéen ñëpp ci moom ngeen roote. waaye maa ko doonu de. yaa ko doon. Ah. mais Mbayang daa osé. maa ko doonu dama osé kay maa ko doonu kay. Ah! maa ko doonu de. barke Rasulaay. barke Yàlla. waa ci kaw. yaa doonu Xadi Juuf. yaa lu ma waa sange. a Pero الجوف لا يتقال ngi jegu cefer e jom i ñowajo sana kaga tan we pastor mere e jom i ñowa mbaya ngi jegu cefer e jom i ñowajo sana kaga tan we pastor mere